Eh, idris eh, li ko taxa a dee ci kaw asamaan mooy ñii nee nañ dafa ragal dee ba tax muy daw dee far dajeeg dee ci kaw asamaan eh, loolu daw dee moo ko tax a dee ci kaw asamaan wala dafa demoon pour un voyage quelconque ok qu'est-ce qui s'est ba Idriss dee ci kaw asamaan waa El Badou loolu bari na ci loo xam ne njuumte la hmm. idris ragalul dee Idriss deewul ci asamaan fii la dee malaaka yi yëkkati ko yóbbu ko dañ ko rey fii ba pare yëkkati ko yóbbu ko kon leer na yëkkati ko war a fax wa naa makaanan aliyyan yëkkati ko ko yàlla yóbbu yóbbu ko barzaq moo ko demande moom moo demandé nañ ko rey moom Idriss mhm. Idriss yonent la Idriss ku xam yàlla la te ku bëgg yàlla la mhm. Idriss mënul ragal dee ab yonent la tout kan moo yonent yàlla Idriss mhm. xam nga wax naa la keroog ni la Euh, sëtu aadama la siisa moo jur anos mhm. anos jur xaynaan xaynaan jur mahlail mahlail jur bard bard jur idris gis nga ko mhm. idris jur mut saxlax mut saxlax jur laamik laamik jur noox mhm. idris mi ngi ci diggante siisa ak noox dund na 777 ans moom yonent yàlla idris moo njëkk a créé écriture moom la tubaab yi di wax Énoch

Idriss moo njëkk a créé ay symbole yu représenté ay son ci benn langue boo xam ne langue boobu dafa disparaître tey moom la wax la langue de moom la moom la ñeen wax la langue des anges maanaam malaaka yi làkk woowu lañ daan làkk ci seen waxin mhm. dañ ñenn ñi dañuy aadama bi Idriss daan wax langue boobu la wax c'est un langue sémitique ogirite mhm. d'après ñaari occultistes yooyu muy euh, John Day ak Edward Cayley ñoom ñoo traduire le livre d'Enoch ñoom ñoo wax ni langue bi Enoch doon wax sémitique la moom mooy langue bi nga xam ne moom la aadam doon lank mais Idriss ce qui est moo njëkk a ñaw yére moo njëkk a bind moo njëkk a euh, n'est-ce pas euh, defar yu baree baree baree bare ci dafa mënoon liggéey trop da daan liggéey lu bare da daan ñaw nekkoon sàbbalkatu yàlla 24 heures vingt 24 day sàbbal yàlla moom Idriss ba benn bis malaaka yéemu ci moom dikk ni waaw Idriss daal ñun jaaxal nañu moom fekk fekk guddeeg bëccëg subhaanallahi walhamdulillahi wa laa ilaha illa allah wallahu akbar rek du nopp li mukk yàlla ni leen dem leen ngeen laaj ko lu mu bëgg comme noonu la ci mel wala laaj leen ko lu mu soxla malaaka yi dikk ni Idris ñun de dañoo jaaxle woon gis la yow ngay tudd yàlla guddeeg bëccëg di sàbbal yàlla ñu dikk di la laaj lan nga soxla ba tax yow ngay sàbbal yàlla sàggal gu dul jeex boo ñu ko waxee ñu ñaan ko sunu sa borom mu may la ko hmm. Idriss ni leen ndax bu ma leen waxee li ma bëgg da ngeen ma koy defal ñu ne ko waaw waaw buñ ci yàlla joxee ndigal ñu defal la ko Idriss ni damaa bëgg ngeen rey ma dekkal ma Idriss moo souhaité la mort ci boppam malaaka yi rey Idriss dekkal ko Idriss découvrir de ni mu mel ko daal ni ah léegi nag damaa bëgg ngeen rey ma yóbbu ma barzaq ndekete boobu Idriss mu ngi leen di tendre benn piège mhm. ñu rey Idriss ci waxin rek yóbbu ko barzaq Idriss ni visité barzaq ni muy demee yomal xiyaam fi ñuy àttee nit ñi balance yi téere yi lépp fi ñu koy teg mu xool ko ba pare ni léegi dama bëgg a dugg aljana safara <laughs> visité ko yàlla ni dugal leen ko du lakk ñu ne Malik ubbil ko buntu safara yi Malik ubbil ko buntu safara Idriss dugg biir jahanama gis rab ya fa nekk monstre yi xur yi safara si pax yu lëndëm yi yàggu fa tuuti mu génnaat ni aw oh, fii dee kërug alkaan di dëgg la mm-hmm. daal ni léegi dama bëgg a aljana aljanna malaaka yi ànd ak moom dikk ni ridwaan ubbil ko bunti aljana yi ridwaan ubbil ko idris dugg biir aljana ah idris elbadu bi mu ci cët dugg biir aljanna mu ngi def tànku neen dugg biir aljana dëgg ay ndëggoom ci suufu aljana mm-hmm. dafa dox ñaari jéego ñetti jéego ni nemm taxaw benn place yëngatootu malaaka yi diko séen mais xamuñu lan motax Idriss taxaw mel ku ñëmé wula dem ndekete boba million de pep suuf yi nga xam ne ñoo nekk ci suufu tànku Idriss benn bu ci nek pep suuf yi aljanna benn bu ci nek dafa nek benn banex bo xamni mi ngi dugg ci bir tanki jaar ci yokku yi ak ci sidit di yek jëm ci xol bi Idriss buggul teggi tànkam di dag lolu motax mu taxaw plaisir bi plaisir boobu. Mhm. maanaam nekkul benn plaisir. Mhm. ay millions de pepp suuf ñoo nekk sa suuf tànk bi nga ko dëggee. Mhm. benn pepp suuf bu ci nek ba bànneexu boppam la bo xam yow di nga yep est-ce que dégg nga li ma lay wax. comprendre na baax li ma wax. be yoy yep di yéeg jëgandoo moom ci xol Idriss taxaw ni nem waye ndekete Idriss ndekete en même temps niko ko ngelaw li di uppe muy dal ci yaram bi. particules yoy nga xamni moy les neutrinos bu dee fii ci ñun ci adina dafa am ay particules yu wax les neutrinos dafay traverser sa yaram constamment tout le temps am ay particules dal sa yaram di ko

Idriss sentir lu mat centaines de millions de ont parfois yu beaucoup te bilile. daf koy Ils identifier ils la la ont en même temps Idriss n'gala ni muy uppee garab son bi muy Ils ont musul musique Idriss musique ni Ils mu ndax Ils ni muy Idriss taxaw place di de loin ay milliards de kilomètres mi ngi gis benn verdure bu verte àll bu rafet rafet rafet garab yi meññ verte ba sombre garab yi naat meññ xeet fruit yoo xam ne moom mosu ko xam nit xamu ko jinne xamu ko ak yeneen fruit mi ngi gis ay ndox yi traversé ay fleuve bi ñuy wax salsabil beneen dexu lem yi romb dexu sàngara yi romb dexu meew yi romb mi ngi gis ay ndox yu tëb ci kaw di wàcc mi lay waaye mi ngi gis ay picc yu naaw picc yi ñu ngi mel luy def ay chorégraphe yu rafet ci kaw asamaan si mm-hmm. mi ngi xool à l'horizon mais mi ngi mel ni jaww ji dafa mel ni wurus Idriss nekk ci benn beauté boo xam ni c'est époustouflant maanaam nit mënul comprendre lii mm-hmm. beauté insolent insolent mm-hmm. Idriss dox di dox ba mu yàgg mu gis benn bunt benn buntu kër mu ne ah xaaral mu dugg ci kër gi vérifier naka la Idriss ñëw dugg ci biir kër googu dafa mel ni ci moom jardin bi mu jógee dafa mel ni ci moom ak mbooy ndax jardin bi mu fekk ci biir kuuru kër googu mi ngi gis ay picc yu rafet ñu ngi naaw gis fi ay xeetu raisin ak ay fraise yoo xam ni beauté bi ñu am nit munu la ko expliquer picc yu rafet ya fay naaw nit mënul gis lu mes noonu wala jinne gis ko mu ngi gis ay escalier en or mu jekki-jekki dox jëm ci escalier yi ni xaaral ma dugg ci porte yu xool mhm. bi mu ñëwee yéeg escalier yi porte yi glissé mu dugg ci biir fekk benn lal lal bi largeur bi 30 mètres la guddeur bi 70 mètres la ci kaw lal bi nañ ci def ay plat yu def ay fruits ak ay boissons Idriss làmb ci loxoom lal bi lal bi nooy neex lool mu ne xaaral ma ci essayé ko naka la yéeg ci kaw lal bi rek lal bi jóg ak moom di jóg di jóg ba jóg 70 mètres daal di taxaw Idriss fëgg ay tànkam ba mu jekk mu aj ndànk commencé di consommer li ne ca plat ya di naan ci ñam yu neexee fa nekk malaaka yi taxaw ci bunt bi lu yàgg xaar ko dégguñu ko ñu ni ko Idriss mu ne naam ñu ne ko waaw génnal yàgg nga ndax dafa yàgg lool mm-hmm. idris ne leen man du ma génn de ñu ni ko looy wax nii mu leen man fasuma yéenee génnati ñoom malaaka yi ñu jaaxle Idriss ni leen te du yàlla moo ni woon bàkkan bu mos dund dana mos de ñu ne ko waaw waaw mu ne man dee naa de ñu ne ko ah waaw waaw mu ne yàlla de moo ni yéen ñëpp di ngeen di ngeen traverse di ngeen dikk yowmal xiyaam man di ñëw naa yowmal xiyaam ñu di ko waaw waaw mu ne yàlla moo ne yéen ñëpp di ngeen tiim safara man de dugg naa sax biir safara visité ko ñu ko waaw mu ne yàlla moo ne woon bàkkan bu ku dugg aljana dootoo fa génnati man dugg naa aljana man Idris dootuma génn. est-ce que ni ah dem ni yàlla ñun de Idris daal dañoo dem ba foofu mu dugg ñu ne ko génnal mu lànk ni moom dootul génnati. ndax moom moo yaani woon bakkan bu dugg aljana dootu fa génn te moom dugg na fa dootul génn loolu la ñu wax de daal leen ko ah kon wax na dëgg kon bàyyi leen ko ñu bàyyi fa Idriss looloo ko fa tax a nekk mais dund aljana mm-hmm. El Babou doomu aadama nit mënu ko imaginer gis nga foofu univers boobu xaaj nañ ci ñëw mm-hmm. xaaj nañ ci ñëw